en direct marche pour la libération de Guy Marius Sagna en direct avec Wassam gars yi partage leen vidéo waaw Maram may ga Manang

booyal may dee waay yaa ngi ci jàmm. wala léegi ma ñibbi quoi. non bu ñibbi. <laughs> booyal may sonal waay yow. ah naka mu. mais ça va et toi. mais ça va. ça va maa ngi gis appel mais c'était un peu tard quoi bu may gis. na nga def. mais ça va maa ngi dëgg. waaw am na.

di leen ziar yi ñëpp mais partage leen vidéo bi yaatu. en direct euh, Obélisque avec Wassam avec Dafa Jot TV ñu ngi démarrer marche bi.

Ah, what's up? Yeah. No, no, nice. mais war nga ñëw fii nii gisee ah. yaa ngi ginnaaw yaa ngi fa. maa ngi fi gën a naan. maa ngi fi gën a bës. nga bëgg bës man. mais yow ñoo bokk bañ. étoile ngay wàcc tout droit ba sama kër. cinéma Al Karim. waaw man cinéma Al Karim. banque de kii bi nekkoon banque de l'habitat. banque islamique bi mu nekkoon ci ci semence sec bi. yaa ngi sama kóol yaa ngi sama kóol. waaw ñaar ligg ba mu toogoon daal dinaa ñu def benn jotaay sama koo yi foofu. noonu la demee ñu def ko benn PNA. sàcc na dikkaate. Hey! Son ne mi? man bàyyi naa leen bàyyi naa leen dama mer katoo léegi Yes. waaw ah, ku dugg rek da nga partagé ah. bien. ayca. mais man li ma jaaxal mooy police yi ñu taxaw fii quoi bañ gars yi marche wala nu mu demee noonu. Abraham sama kay. salaamaaleykum. naka la lépp jàmm ah. waaw on est en direct de l'obélisque pour la marche pour la libération de Guy Marius Sagna mooy ki nga xam ne c'est un vaillant combattant boo xam ne bon il lutte que la cause noble. Aliou libéré Aliou Sall Macky Sall libéré Sall Macky Sall libéré Aliou Sall Macky Sall libéré Aliou Sall Macky Sall libéré sàcc la Macky Sall Macky Sall libéré Aliou Sall sàcc la Macky Sall libéré Aliou Sall. sàcc na. Macky Sall. dictateur. libéré. Aliou Sall. sàcc na. Macky Sall. dictateur. libéré. Aliou Sall. sàcc na. Macky Sall. dictateur. libéré. Aliou Sall. sàcc na. Macky Sall. dictateur. libéré.

Aliou Sall. Macky Sall. libéré. Aliou Sall. Macky Sall. dictateur libéré. Aliou Sall. Macky Sall. libéré. Aliou Sall. Macky Sall. dictateur libéré. Aliou Sall. Macky Sall. libéré. Aliou Sall. Sall libéré du Marus Aliou Sall Macky Sall libéré Aliou Sall Macky Sall libéré Aliou Sall Macky Sall libéré Aliou Sall Macky Sall dictateur libéré du Marus Aliou Sall dictateur Macky Sall dictateur libéré du Marus Aliou Sall Libéré, Macky Sall, libéré, dictateur Macky Sall libéré du Marius Macky Sall Aliou Sall libéré du Marius Aliou Sall Macky Sall libéré du Marius Macky Sall libéré du Marius Aliou Sall Macky Sall libéré du Marius Macky Sall sàccaleur libéré Aliou Sall sàccaleur Macky Sall libéré Aïcha yow libéré Macky Sall Aliou Sall libéré Macky Sall Aliou Sall libéré Aliou Sall Macky Sall libéré Aliou Sall Macky Sall Kibarış! Sakiler! Diktatör! Libere! Kibarış! Alifel! Sakiler! Sakisel! Diktatör! Kibarış! Sakiler! Diktatör! Libere! Kibarış! Sakiler! sàcc yi yi waaw gars yi mi ngi nii gars yëpp génn nañ ñëpp génn bon mais on demande plus de plus de plus de personnes plus de peuple xam nga pour ñuy génn di revendiquer seeni droit parce que li ñuy xeex ñun ñëpp ci bokk yem ñun ñëpp a ci bokk yem waaw li ñuy xeex ñun ñëpp a ci bokk yem du pour suñuy poos du pour suñuy poos gars yi leen génn de leen génn ñëw ci manifestation yi yàggul benn deux heures de temps la nga ñaxtu def li ngay def xam nga mu jeex yee sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole ak gaz sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole sunu pétrole pétrole suñu pétrole suñu pétrole suñu pétrole suñu pétrole suñu pétrole suñu pétrole suñu pétrole vraiment ñi si kanam nañu baal ñi si ginnaaw. mais man xaw ma woon da ngay laaj quoi nañu baal ñi si ginnaaw nañu topp rythme camion bi. waaw la ko wax. ñi si kanam nañu xaar ñi si ginnaaw egg nañu effet soo pare. ñi si kanam nañu dem si ginnaaw nañu dem si ginnaaw panneau bi camion bi na xaar tuuti. Aïcha. Aïcha. ok ok. xam ne seen njaboot la ñuy tayle seen njaboot yi ñuy tayle ah, ci biir géej gi ñaata nit a ciy seen ak doom nañu xool ñoom li ñuy def ku ci tey la sa njaboot bu ëllëgee di nga bëgg a yor sa sijaada ak sa groupe boo jàppee julli ñëw ko sa groupe di ñaar te su boobaa doo gis doom du la relevé nañu bàyyi sunu doom yi ñuy tayle nañu bàyyi sunu doom yi ñuy tayle sunu doom yi dee nañ si géej gi ba jeex xale bu dugg géej da nga dem uniquement pour teral say waaj parce que Sénégal kenn du wax kenn du saxal kenn du xool merci sama yaay merci jaajëf waay. waaw gars yi dañuy génn. waaw ñu ne gars yi ngeen di génn ngeen di génn jàppale seen mbokk yi xeex suñu war a xeex jël suñu xaalis suñu pétrole. Say, say, no. Daouda Gueye Daouda Gueye Daouda Gueye gars yi ñu ne la ñëw si camion bi. même client même fainéant même incompétent même vieillard dans le fond ñaata bu ñu ko. une fois bu ñu yeggee RTS ndax ñun ñëpp taxaw ci kanamu camion bi tout le monde devant le camion bu kenn nekk si ginnaaw camion bi ñëpp. waaw.